waaw gannaaw sant yàlla te julli si yonent bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne lii sant yàlla rek bés bii mbootaay xeet bi ñu tuddee ko ONU moo ko jël ci taxawaay benn jigéen bu bu bu bu bu bu bu taxaw te nekk euh, jabar Oumar Bongo ancien président du Gabon moo ko plaidé moo ko xeex ba mbootaay adduna bi teg ci loxo veuve et orphelin bés bi mooy le 23 juin yaakaar naa nag ñun Sénégal boo xoolee suñu diine.

organiser ko ñun ñu ñëw pour jàppale len donc mais légui ñun ñoy ñun ñoy def li mun mais du ci mais au moins ñun ce qu'on fait lu ñuy def ah président Macky Sall moo si jàpp mun wax ne lu ñuy def yépp moko japp parce que on l'a sensibilisé wax nañ ko lu si am té mu ngi ci taxaw légui nak lu ñu lu ñu bëgg c'est que mu yok c'est-à-dire institution yi ministère yi ñu xamné social bi fofu lañu ñu ko logé ñu mëna

tout tout par rapport au veuve Sénégal pour le moment on a recensé que 6 000 xam ngeen que 6 000 presque génnuñu Dakar donc ça, nous ñu c'est Dakar c'est des centaines de milliers de femmes et d'enfants qui sont concernés donc ça signifie que nous sommes prêts à participer à tout à toutes les toutes les actions mais que la République prenne les choses en charge et nous, qu'on soit là pour faire des propositions, pour accompagner, pour gérer éventuellement avec eux, pour que véritablement ce problème des veuves et des orphelins, que toutes les difficultés qu'on a, il faut nous pour nous régler mais chacun d'entre nous est ici en tout cas les jeunes chacun un, potentiel une potentielle veuve, chaque enfant de moins de 18 ans est un potentiel orphelin. C'est ça la vie et c'est ça la vérité. Yalla